Mm-hmm. jamono TV jamono waa jamono jamono TV am na ndam waay jamono ah jamono waa jamono jamono TV yéen a gare lool jamono TV oh waa jamono TV jamono TV yéen am ngeen jamono tv ñoom daal ca kaw ca kanam jamono tv tànn rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di wax asalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin ñu ngeen nuyu mbokki jullit yi yëpp ñëpp képp ku nga xamante ne yàggee seetaan jamono media and di leen wax leen nag ah, man la seen soppi ma teewaat fii tey comme ni ñu ko baaxoo defee saa su nekk rek xam koy tegee boor indil leen li nga xamante ne ah, mooy yi ñu koy ooyee ah, li ci kër gi mu nekk programme boo xamante ne nag ko soog ah, fii si jamono Mediane Products fas yéene waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ne mooy xew ci biir kër yi rawatina ci diggante kilifa yeeg jabar yi ak jëkkër yi ak ñi nga xamante ne ñooy goro yi lépp loo xamante ne mu ngi xew ci biir kër rek ñun programme bi loolu mooy waxtaanam te loolu la ñuy gestu indi leen ko yéen ñi nga xamante ne yéen nañoo seetaan ba tax na programme bi xam ngeen duma ci wee saa su nekk ren xam su ma fi toogee damay ànd ak ki nga xamante ne mooy Okul Thiam gunge ma ci li nga xamante ne mooy waxtaan bi ba tax na dañ koy bàyyi moom it mu nuyoo ñoo dugg ci nga xamante ne mooy euh, waxtaan jërëjëf Ami Ba ñu ngi lay nuyu te di la ziyaare te di la wàccee ci sa wàccuwaay te naan mbokk yi seetaan jamono ji jamono TV ñu ngi leen a ziyaare bu baax baax fu waay mën a nekk rek mooy ci réew mi ak biti réew ñu ko naan kooru ko teraanga kooru bu yokkute si saayir ak si baatin ak jégalu bakkaar. kon su ko defee rek follati nga it si yeneen i mbir yow moom saa su ne yaa ngi ci kër yi rek. Mm-hmm. waaw baax na waaye bul tas kër de baax na jërëjëf. <laughs> macha allah kàddu rafet na ah Thiam laas bi waxtaanee woon nañ affaire yi. Ah, borom kër yi nga xamante ne ñooy jël liggéey yëpp di ko bàyyee seen jabar yi ak naka la jigéen war a doxalee ci diggante moom ak goroom yeeg njëkk yi ah, mu nekkoon waxtaane last week bi waaye bi this week ma bëggoon a indi waxtaan bi nga xamante ne mooy kilifa ci biir kër ndax xam nga ne kër yi wax naa la kilifa ñoo ko amee ah, surtout jigéen bi daf ci am solo trop ndax jigéen ci biir kër non góor moo ci am solo moo tax kër góor moo indi jigéen caam nag li da nga bëgg nga xam ne jigéen saa su ne ginnaaw góor lay ne ah. kon su fekkee ne nee nga jigéen dafa am solo ci kër te di jigéen nekk ci ginnaaw góor te nga bañ a wax góor loolu duma ko nangu. waaye jigéen mooy tax kër bu baax. non góor la su fa dara dara kan la kan la. non waaye jigéen am na jigéen jigéen pile na si rôle Thiam. jigéen pile na ci. kon da jiital ka njëkk a pile balaa ka mujj a pile. nga jël ka mujj a pile jiital ko. ka njëkk a pile ngay jiital. góor gi moo yëlif jigéen bi waaye jigéen bi mooy pile róor róor bi. ami soo bëggee ñu juboo da nga da topp wala ma delloo la sa maay jaar nii. <laughs> déedéet bu baax. waaw kon góor góor moo <laughs> moo am solo. ci kër kon góor. góor góor nga ñëw na ne jigéen. waaw góor ñoo amee kër gi. Mhm, waaw ñu jigéen ñi topp seen gannaaw daal. Mhm, topp si loolu topp rek foog mu nekk <laughs> munoo xëccoo imaamu yàgg. <laughs> ba dana caam dañu dugal si waxtaan bi tey bëgg naa ñu waxtaan euh, lu am solo euh, ndax gis nañ ne weeru suy jege ñu bari euh, dañuy faral di dem marché surtout jigéen yi di shopping ay bagaas di jënd ay kaas yu ees ay bagages lépp loo xamante ne si biir kër la dañoo bëgg a yëpp maanaam si gàttal daal dañoo change furniture yi ci kër bi. di shopping bagage yooyu ndax loolu l'islam nangu na ko wala loolu lu war la pour nit ñi di ko def ci weeru koor Olof Njaay nee na na def loo man wax loo man soo tëddee soppi bagage soppi jikko moo ko gën ah. jënd ay kaas te mënuloo ko jënd ay bool <coughs> te mënuloo ko mm-hmm. jënd ay tuugu te mënuloo ko lu nekk nga soppi ko ci néeg bi benn dafa nekk suusu bi nga teggi walla mu nekk la nga lebi wala mu nek la nga dencoon way lañ sopp ci weeru koor du soppi ay bagage yu ees soppi sa jaamu yalla lo lañ soxla ci koor da soppi sa jikko soppi sa waxin soppi sa xolin mota amna kenn ko xamne daf day ñaan mu ne yalla yalla def leer leeru njub su suñ gis yalla yalla def leeru njub su suñ degga yalla yalla def euh, leeru njub si suñ doxin ak yooyu ko da gis ne weeru koor ah, soppi ay toog wala soppi ay kaas yu ñuy naanee loolu amul si solo oh. yaa ngi soppu toogu yaa ngi ceeñ say toogu ci weeru koor yaa ngi soppi say say say palaat ci weeru koor mm-hmm. ak ay basang yu ees te yow sa xol bi moo gën a ñuul caméra gu jàkkaarloo ah soo te soo duggee ci kër yaa ngi toroxal sa jëkkër ah mënuloo dëkk ak say njaboot say njaboot sax dañuy gëstu ñu ne suñu yaay ji dafa bon kon lan mooy njëriñu soppi ay toogu te sa xol baa ngay ñuul te foo toog jëw dafa waxoon nañ ko fi last week uh-huh. soppi ay kaas te yow sa bët saa yoo xoolee nit yaa ngi koy xoolee xoolinu kii de fu mu yegg waru fee yegga uh-huh. gis nga kon Euh, soppi soppi soppi sa sa dëkkin ci weeru koor loolu lislaam waxut ko soppi jikko la wax loolu moo tax sarax yi ñuy saraxe soo bàyyi xel sarax yi dafa war saa su ne jamono bu nekk waaye lu tax ñu koo def weeru koor mooy pour gën a am tiyaabu tiyaabu yi gën a yokk parce que bakkaar noonu lay gën a bone weeru koor soo ci defee bakkaar dañ koy dañ koy fulandi mm-hmm. ni yeneen bokkut ak yeneen weer kon da gis ne man daal si gàttal soppi ay toogu soppi ay kaas soppi ay soppi soppi soppi te soppiwuloo sa jikko amul njëriñ lu am gën a am solo ci weeru koor mooy soppi sa jikko jàppale ni ñi di leen taxaw kaas yu ees yi ngaa dem jëndi amoon na koo xam ne tey jëndal ko kaas jox ko mu koo naanee tii moo gën parce que kay kay naanee tii kopp kopp boo xamante ne nii euh, euh, kii la kawsu la nga dem jëndal ko kopp bi nga xamante ne nii kopp bu méngoog jamono la nga jox ko nga ne ko lii dama la ko jox pour weeru koor bi li ngaa naanee tii saa yu si naanee tii yaa ngi am tiyaabu saa yu ko tegee sax jëfandikoo ko yaa ngi am loolu ak nga dem jënd yeneen i kaas génne yeneen i kaas sànni yeneen i kaas denc yeneen i kaas ñu pour lu loolu sariya buggul ko yàlla sax buggul ko yow mi koo def sax doo si gis benn yokkute. pour mm. du ne rek ah diw de kaasam mi rafet na. loolu amul njëriñ. waaw soppi jikko daal ci weeru koor man moo ma gënal soppi ay bagages. Mm-hmm. te di gën a yéeme sax ñeneen ñi dañoo ceeñ bagages yi waaye duñ ko sànni. dañ koy denca. dañ koy denca si danañ koo génnee maye ko. waaw waaye dañ koy denca pour yeneen fekkaat. fekkaat yeneen yeneen fekk loolu mooy ne yow da ngaa dajale rek. li nga xam ne feesal néeg bi feesal néeg bi soo dee ñu jël tasaare ko ñu ne di waa fi bari bari bagage. Mm. man daal nga bari ay tiyaabu ci biti moom a gënal nga bari bagage. Mm. waaw. macha allah ah bu fekkee nag jëkkër euh, comme borom jigéen bi jëkkëram moo ko jox xaalis ne ko dama nga siñ bagage ndax loolu euh, lislaam waaw de lu mu nangu mooy dëgg-dëgg lislaam dafa bëgg a nit ki di confortable ah. nga ne sa yëre sax lu màgget màgget na set ah. sa yaram loo ñuul ñuul loo xees xees danga war soo génnee dañu war a xam ne kii ku set ak génn nii. Mhm. kon set euh, l'islam dafa bugg ku ku bugg a bokkam ku bugg boppam kon da gis ne tey euh, kaas yi nga xamante ne tey kaas yu màgget la nga indi yeneen i kaas kaas yooyu noonu da ko war a maye so góor su la sa jëkkër su la joxee xaalis pour nga dem soppin euh, indi lu ees teg ko ci néeg bi waaye nag da nga war a loolu moo tax ñu ne jigéen dafa war a nekk ndeyjooru jëkkëram. xaalis boobu mu ngi laa jox est-ce que amul ay mbokkaam yi nga xamante ni ñu ngi toog ci kër gi amuñ kaas yu muy toog ci kër gi amuñ luñ ndogo ñu ngi toog ci kër gi amuñ luñ jëfandikoo mm-hmm. kon eh, ñu ngi toog ci kër gi seen doom yaa ngi war a jàngi amuñ luñ jàngi ñu ngi toog ci kër gi seen doom war a am paas pour dem jàngi munuñ jàngi school fu problème kon balaa ngaa su génnee xaalis boobu pour nga gis ne pour pour ay bagage kese te yéen ngi am bagage yu ngeen jëfandikoo loo ko njëkk a mooy ah diw de sa mbokk la waaye nag amul kaas yum naa diw di sa mbokk la waaye weeru koor bile dundoom bi sax eh, mënu ko yóbbu genn wàllu weer kon li nga génne ay thousand yi nga génne parce que toogu rek soo ko bëggee jënd tey twenty something thousand oh. yaa ngi dégg te yaa ngi am toogu yu ees oh. xanaa nga jënd toogu yu ees yëkkati waa toogu yu nga amoon maye nga maye ka nga xam ne xaajoo na uh-huh. yaa ngi dégg soo loolu yëpp mën na nekk waaye li fa nekk daal mooy Eh, saa yu war a génnee lii jëm ci yow te yaa ngi mënal sa bopp as tuut balaa ngaa yokkaat leneen ci sa kaw seetal say mbokk yi nga xam ne jege nañ la nga jàppale leen. Oh. ba ba foofu it du am solo la mooy dañ war a xam ne yàlla moom it lim njëkkaa digle mooy sooy jàppale jàppaleel sa mbokk. Oh. balaa ngaa jàppale si keneen ci biti sa mbokk nga war a njëkkaa jàppale. Oh. kon sa mbokk yi nga xamante ñu ngi toog ci kër gi ñu ngi ñàkk mm. amuñ. balaa nga ne naa dem di dimbale ñeneen wala ngay may ñeneen wala ngay def leneen di ko yokk ci sa ko di dajale ay bagage nga xaaj si jox si sa mbokk moom li nga wax noonu la foofu noonu fi nga ne sooy jàppale jàppale sa mbokk mm-hmm. ndax am na góor yoo xamante ne yàlla defal na leen teraanga mm-hmm. euh, ñàkkuñu dara ñu takk jabar mm-hmm. commencement sëy bi dina neex waaye su demee ba si kanam jabar bi ci boppam moo koy puus pour mu wan ginaaw ñi nga xamante ne ñooy bokkam. waaw loolu mooy jabar bëri na si góor yi jabar yi ñoo leen di contrôle ci waaw loolu mooy jabar ju bon parce que jabar ju baax su ñëwee ci kër dafa boole nit ñi. jéegu mhm. puso. xam nga danga jéegu puso. Mhm. waaye du nekk lancet. Mhm. jabar ju baax su ñëwee ci soo gisee tey ñu naan la sax ah, nga am jabar sa jabar dëkk sa yaay dëkk ak sa papa. dëkk ay say rakk dëkk ak say mag nekk ci kër gi di def lu nekk. lolu nonu jigen ju bax mo koy def te jigen ju bax mo tax sa lolu di law parce que suñ mami ak suñ papa dañ doon indi jigen yi nga xamne ni dañ bax tok ci kër gi bot family bi waye yeneen xeet so fa demee lu melni ni comme tuba bi ñom xamu ñul ñom so amé sa jabar yaw ak sa jabar ak sa doom jeena na lolu loolu lañ gëm te lolu it ba tay yalla yalla xaraama lu ko lu yoon la mm-hmm. yaa ngi dégg waaye ñun gannaaw ñun suñ aada mm-hmm. dafa laaj pour bot njobootu kanaara lañ oh. soo léegi da ngaa gis ne taxale ko du am foog gaa yi di ànda di yëkkatee ndóor di doona ndóor ba sa tax sax dem na ba suñu aada sax tey su fekkee ne tey alaaji indi na jabar ci kër gi mm. alaaji moomu noonu luñ koy njëkkaa gëmloo koy jabar dafa war a dëkk sa yaay dafa war a dëkk ak sa baay mm-hmm. njëkkee yëpp ci biir te déedéet alaaji su takkee jabar su ko nee mu ne papa yaay damaa dem luwaasi mm-hmm. añ ak añ ak reer ak ndékki ñu indi leen am na ci raay waaj ñu ne gis nga jabaram moo ko dugal si malaana waaw jabaram moo ko dugal si malaana loolu la ñu wax moom malaanu jigéen rek lay topp mhm. dem na te te dem bu mu dem mhm. su ko neexee it man na waxal jabaram ne ko dama bëgg nga dëkk ak sumay waajur fii ci kër gi su neexee jabar ji mu ne duma ma dëkk ak ñoom parce na ci na ci du ma dëkk ak ñoom mhm. waaye nag ndax léegi nag su ko waxee lu ñu koy gisee mooy kii moom jabaram rek la bëgg waaw jabaram lu mu ko wax loolu lay def. wala ko liggéey te te te ñooñu wala daf ko liggéey. waaw liggéey ñi tamit moom dañ si sonna mm. kon da gis ne lu si gën a bari fii ci réew mi loolu def fi nekk waaye da gis ne lu si gën a am solo mooy nañ nañ ko bàyyi nañ ci nañ ci bàyyi xel mooy góor bu nekk sooy jëfa sooy defar balaa ngaa defaral kenn say say mbokk. Uh-huh. force say mbokk de. Uh-huh. say mbokk mbokk say mbokk def nañ ko sax tey ami loo am am am am am alal. Uh-huh. lu ñoo njëkkaa seet mooy ndax kii jàppale na ay mbokka uh-huh. duñ seet duñ seet jàmbur yi de loo defal jàmbur yi duñ ko xool uh-huh. li nga defal say mbokk la ñoo njëkkaa seet uh-huh. kon dafa am solo foofu ñu bàyyi ko xel mooy soo amee fukk balaa nga amee juróom ci biti njëkkal seet say mbokk nga ne leen am man su ma ñëwee càmm su ma ñëwee ne jàkk am yi ñu ne am moom mooy borom xaalis bi moom moom kër gi moom li maa njëkkaa seet mooy ana jaat ana rakkaam bu jigéen ana rakkaam bu góor ana jarbaatam ana léeg-léeg sax dañuy dem ba ñu ne sét gis nga de diw mu ngi mais xaalis bi waaye nga kii sétam la waaye dara la ko dimbale ko dafa am solo foofu baa mooy waajur bu nekk ah, kii jigéen buy sëy ci kër dangaa njëkkaa indi mbokk jëkkat ji mm-hmm. taf ko ci jëkkat ji mm-hmm. soog a taf sa bopp te loolu mooy sa doole xam nga yéen lu seen problème mooy da ngeen foog ne it ne ngeen wéetoo ak seen jëkkër yi mooy seen doole. ah caam ñoom kay. non non loolu du doole de. ñoom <laughs> li bi xam doole bi fu mu nekk mooy nga fexe ba famille bi si boppam ñu jege ko moom yow nga ñëw jege ko parce que famille dinañ dem ba xam ne soo gisee ñu man am lii ci moom. Mm-hmm. yàlla ak yow la te ñaareel bi mooy su jafe-jafe amee da nga mën a dem ci Abdoulaye ne ko ah laay. kaay wax si tey moom sa waay moom dafa takar naa si de. gis nga he caam kaay wax si sa waay tey moom dafa takar naa si de parce que ñun ak moom ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. léegi ñun ñoo koy mën a ñëw fay safaraam waaye su fekkee na yow da ñu kii fële <laughs> kii kale fële. nga ñëw féetoo ak moom benn bés moo tasaaroo si sa kaw coow li ne kuur kan mooy réglé. kenn du réglé. fooy daw say mbokk ngay dem. te ñooñu te say mbokk amuñ doole ci moom. Mm. ñun ay mbokkaam ñun ñoo am doole ci moom te yow da ñu kii. Mm-hmm. ñu ne nañ ko bàyyi di kii na bi day tas loolu la ñuy njëkk a bi danaa dafay tas mm-hmm. parce que ñu lu ñu buggoon ci moom mënuñ ko am xañ nga ñu ko léegi yow li nga bëggoon ci moom amoon nga ko waaye léegi yàqu na mm-hmm. kan nga ko war a def ah, ñoom rek lii mooy mbir mi kon moo tax foog ñu bàyyi xel foofu xam ne sey jigéen buy sëy sa jëkkër am na ci yow doole waaye mbokkaam la war a jëli ay mbokkaam indi leen taf ko ci seen kaw taf ko ci seen kow taf ko ci kowam yow tam nga ñëw bokk ci su ko defee lu ñu fa mën a jëriñoo luñ fa mën a am yàllaa ak yow la. parce mm-hmm. que mënul ngeen koo xaj waaye xañu leen ko da ngeen wax ne yéen yéen a ko defaat parce que nag ñoom ñoo ko defaat di ba nga gis ko bëgg ko. Mm-hmm. ba muy ngémbu faalewuloo mm. ba mu demee ba commencé baraaye takk di am di wàcc yor xaalisam di wàcc di dugg ci motom di kat kat di génn si nga ko gis bëgg ko kon ba muy doon dara ah, ah, léegi yéen da ngeen di lijjanti ah, di di kon dañu ko na si dara xam na si dara léegi ñun góor ñi wute duñ de yéen nañu kenn xam nga góor dafa manqué nag non non góor dafa manqué non non góor gëfa jigéen moom batt la jigéen moom mbatt la ci mm. dëkk bi. xanaa kay sëy buy yàgg wala du yàgg. Mm. waaye moom ñu ngi fi moom. waaye takkatu leen ba ñeenti loolu mooy problème bi. waaye léegi nag ñeenteel bi loolu yéen a ko indi. yéen a indi ba mënuñ takk ba ñeneent parce que tey soo ñëwee man tey su la indee suma néeg bi loo njëkkaa xalaat mooy naka laay naka naka ngaa naka ngay yem yow naka laay naka ngay def ba ba man ma yem ci yow kese. Mm-hmm. da ngay yobbu ñu ci mama ni motax góor go gis mu am bir bu reel ñaka la ko naan ñaari jabar la su fekkee ni ben ben jabar la am sa wara yi bari la rek <laughs> su ngeen amee su góor gu am njëriñ du ngeen bugg beneen jigéen ñëw waaye fiir la nag fiir la jigéen bu nekk dafa war a góorgóorlu puus jëkkëram ci ben ñaar mm-hmm. ñett ñeneen ah loolu de jafe na de waaye léegi yéen su ngeen amee lu ngeen leen kaa def mooy fare yéen seen xel yëpp mooy yow yéen ñaar kese parce que soo gisee last wax naa la ko fi léegi soo gisee ngeen a xeex pour euh, euh, euh, far si benn boor yéen ak seen jëkkër mooy ne bu mu am yeneen xalaat. Mm-hmm. parce que toogee rakka bu mel ni caam daan ko ah, ah bro bro utal seet <laughs> <laughs> soo gis nga waaye su fekkee nag ne su fekkee nag ne dafa am beneen yéen ñaar kese yéen toog di waxtaan. to mm-hmm. da gis ne loolu du am xalaat boobu am xalaatu ut seet. parce que yéen ñaar kese la. Mm-hmm. waaye su fekkee jaaxasoo naa ñeneen ñi rek commencé naa gis commencé xam commencé dugg génn rek yow da ngaa gis ne dafaa uti keneen. Mm-hmm. te loolu moo gën a tardel jigéen ñi jamono ji moo tax góor bu da nga gis góor bu am alal bu du jeex. mu dem di doxaan ci biti. Mm-hmm. moo ko mën na doxaan juróomi jigéen am benn jabar doxaan juróom. si lu lu dem bijulo tey mu dem Sénégambia suba mu dem Bakaw gannaaw suba mu ñëw fii Kanifing Estate ginnaawaate suba mu dem Birkama beneen semaine mu ne la maa ngi dem Terek uh-huh. mu ngi am basi ñu yëpp ay jéegam la uh-huh. waaye benn jabar la am lu ko indi mooy ñëmuuta am ñaari jabar uh-huh. te kooku tey su takkoon ñeneent Abulaay takka ñeneent Jaaw takka ñeneent jigéen yi duñ làmb duñ làmb waaye yow yàlla xam nga yow xam nga yow xam nga li dëkk bii jigéen ñi dañ làmb mu seen dugal dañ day lamb jigéen ñi dañ lamb parce que góor ñi góor ñi bari nay xaalis dafa am yére bari nay xaalis ñemuñ te big ban big man ngay dem kira fekk eh. fa ñaari jabar ñetti jabar bari non su am na waaye bari wut ma ne déedéet amut amna, na waaye li tax ñu ne ñu ne ñuy wax ne amut mooy li am li moo tuuti konteel ma ñi nga xam ci borom alal te ñu am ñaari jabar ñetti jabar bari wut ah benn jabar la am am juróomi nekkaat. waaye ñu bari nag soo leen laajtee dañ la def ne man borom góor yi benn jabar laa. waaw dama yaakaar ne ñoom ñoo ñemewut daal wala ñoom ñoo ñemewut a jël seen responsabilité. pour toppatoo ñeenti jabar. waaw xam nga jigéen am na lu mu lay woon dangay ngay ragal. waaye kilifa waroo ragal si biir këram nag. waaw waaw waaw waaw lu ko indi mooy xalaat yu bari. da te duñ la woon ci góor gu am ñaari jabar noppalu. góor gu am benn jabar te bëgguñ mu am ñaar duñ ko woon ñaari jabar yu noppalu. Hmm. dañ koy woon ñaari jabar yu coonoy ñaari jabar rek lay lañ koy woon ci noppam. léeg-léeg sa jabar ji ñëw indi benn vidéo ñëw gis nga kii de dafa takkoon ñaari jabar waaye gis nga liñ ko def dañ ko xapu diwlin dañ diwlin dañ koo def lii dañ ko def laal gis nga ñu ngi koy yokk fort léegi moom day tiit du ñemee am fit pour dugg si yooyu waaw parce que loolu lañ koy won mm-hmm. léegi nag su fekkee nag ne kuy dund ci ñaari jab ko am ñaari jabar di lu ne mm-hmm. duñ ko woon teraanga kooku de mm-hmm. teraanga keneen lañ ko woon négatif side bi lañ koy loolu lañ ko woon moo tax góor yi duñ takkat ñaari jabar benn jabar rek am ñeneenti nekkaale <laughs> wuñ ñeent tako yee bëri macha allah kàddu yi am na solo ah, ñuy jaajëfal ki nga xamante ne mooy Assette Cissé yaay kër gi caam nee naa la moom kooku duñu ñu tàyyi si di ko ah, nuyu moom tamit ndax plein na rôle bu bu am am solo. waaw te boole na ñëpp macha allah moom it ci jéeg puso yi la bokk. moom moom dëgg ñu ngi koy jaajëfal bu baax Aïssatou si di ko nuyu tam si weeru koor bi di nuyu Anti Koumba Thiam. Thiam Babel Demba Thiam laalaguñ ko moom nag soo sukkandikoo bi gisaguma ko. waaw moom kay su ko yëgee dina la ko. <laughs> allah kon dañoo dem ak break euh, ñu dem xool euh, jamono lan lañ am seen showroom awa bi euh, war nañ product si nga xamante ne moom la ñoo jaayee fii nii parfum yeeg bagage yëpp am nañ fi bagage bari bëri nag nañ dem xool bagage yooyu noonu bu ñu dellu si ñu continuer programme ci biir jamono bii jamono TV jamono waa jamono jamono TV am na ndam waay jamono ah jamono waa jamono TV yéen a TV oh waa TV jamono TV yéen am ngeen ndam. jamono tv ñoom dal ca kaw ca kanam jamono tv gannaaw bu ñu jógee ci euh, euh, break boobu noonu rek si jamono media and products gis ngeen bagage yi ñu amee si biir showroom aw bi am nañ ko euh, te lépp si ci price rek ko mën a amee ngeen daw si gaaw ñëw fekk ñu fii si Kanifing ngeen jël si bagage yi am nañ perfume neex na lool te day yàgg tamit si ñu products yoo xamante ne moom fii si biir jamono media ci promotion weeru koor bii nii ba tey ci am ñu ci li nga ne mooy waxtaan bi ndax gis naa ne am na kër yu bëri yoo xamante ne dañuy génnee dépense euh, maasum ne like eight hundred for example wala ñeneen ni thousand dollars yi te dañoo togg a togg bu bari mun nga togg a ruy togg soos togg a laax togg xam nga different different togga léegi yow bu tàyyi doon jotee nga lekk tuuti la ca des xëjul si firi ba ñu denc ko noonu teg ko balaa bët set affaire bi yaaxu ñu jël ko sànni ko au lieu ñu may ko néew ni doole yi dañ koy jël sànni ko ndax loolu lu war la kër yi ñu di toog a dogg bu bari boobu noonu te doo ko lekk. xam nga yàq foofu la commencé fa la yem. Mm. buggee it foofu la commencé foofu la yem. Ah. gis nga soo woore loo gis danga koy bëgg soo wooree ah. loo gis danga koy bëgg ah. mango bu ñor bu ñorul sax dangay bëgg euh, gis nga. nit ki loo da nga war a xam lan mooy li ngay def moo tax gis nga nit balaa ngaa liggéey sax dañ laa jàngal liggéey bi ngaa def nit ki foog nga xam lan mooy weeru koor nga soog a mën a xam lan ngay def ci weeru soo xamul lan mooy weeru koor doo xam looy def ci weeru koor weeru koor nekkul weeru pour foxale lekk déedéet nekkul weeru pour dajale rek déedéet nekkul weeru pour su ma dogee dama war a gën a neexle déedéet weeru jaamu yàlla la jaamu yàlla nag lan mooy say dajale ñam bi nga xam ne danga koy dajale doo ko lekk ba pare tuuri ko yow sa weer bi sax day mujj a nekk weeru bakkaar dañ ne weeru jaamu yàlla la ku nekk fexeel nga dab ci sa jëf pour nga mën a am lu la yóbbu àjjana moo tax dimbalante bi yëpp ñëw uh-huh. togg lu bari séddale ko di ko joxe loolu amul benn problème uh-huh. waaye togg loo mënul lekk ba mujj koo tuuri loolu bàkkaar la oh. loolu jigéen bu nekk danga ci war a ba li war a yéen jigéen yéen a day dem ndugi oh. ñun góor yi dañoo joxe dépasse bu mat sëkk waaye yéen a war a dem sakkanal suñ dépasse indi ko euh, suñ leen joxee eight hundred dalasi te duñ leen doon jox eight hundred xam nga ne kon lii yokk nañ ci dépasse bi li nga xamante ne ni bokkut ci oh. waaye nag su góor xeree joxe lu bari jigéen moom it war a mën a yemal nduga waaye yéen da ngeen dee yaaxa mm-hmm. ba pare du ngeen dee yërëm góor ñi <laughs> waaw du ngeen dee yërëm góor ñi da ngeen dee yàqate du ngeen yërëm góor ñi lu tax lu dee indi mooy dangay ànd ak exemple nga ànd ak Suzanne mm-hmm. walla nga ànd ak Adama mm-hmm. Adama moom seen kër euh, Chinese population la <laughs> nga ànd ak Suzanne moom xëy na moom tri la yow nga <laughs> ñu ànd yow tuunga léegi yow li ngay bugg mooy li kii li nga xam ne nii seen kër nit ñu bëri nañ mhm. nga rus pour mu ne yow li nga nduga dafa tuuti mhm. ngay nduga rek du dem rek du dem rek te moom di seen dëkk seen kër soo fa demee suñ tiimee boobu danga naa xanaa gàmmo lañ ne <laughs> gis nga beneen bi beneen jàngaat bi mooy suñ la joxee mhm. eight te yow dañ la doon jox Euh, xaalis bi nga xam ne exemple ñu laa jox four hundred mm. su nekkul weeru koor muy ndugg añ mm. weeru koor ñu jox la eight hundred nga gis ñun ñoo yokk suñ dépasse weeru koor waaye suñ dépasse weeru koor moo waroon a gën a mm-hmm. benn yoon ngay lekk ñun ñoo indi fii lekk tii euh, euh, naan tii bi ak soos mm-hmm. wal ba teg waa lekkaat maalo mm-hmm. déedéet ñun ñoo teg loolu suñ bopp way gi nga soy dogee nanal ti nga tangal sa benn uti <laughs> lek sa maalo dem mm-hmm. wala nga defar sa sauce lek dem mm. ko lan mo ci jarna na ko say dépass te yow benn yon ngay lek si guddi bëj guddi eh, eh, gi lek ka lolu xëdd la manam so dogee daal benn yon nga war a nga wara lek lekk sa xel na ku lek benn yon da nga mëna lek yow jëlal sa bop rek ami jël sa bop nga lek sa mburu ak sa ak sa café rek de exemple café rek soo ko lekkee sa mburu ak sa ak nga lekk ko balaa ngaa lekkaat sa dafaa jël taay mm-hmm. maa sa biir bi doo ko jël lu ndox mi nga jël mburu mi ak tii bi rek correct nga ah. balaa ngaa waaye léegi nag te ku nekk jigéen man naa loolu jigéen ñi laa dee bileem ñoom ñoo dee puus jëkkër ñi ci la nga xam ne dafaa métti mm. ku la doon jox four hundred dépasse añ weeru koor su la ko joxee tiir su si yokkee nga ne ko déet lii man doy na parce que lii lañ doon lekk añ te weeru koor añ la rek añ bi lañ soppi rek eh, eh, eh, ñu ne ndogu waaye nag jamono ji luñ dee wax mooy xam nga ku nekk dangay wone ne man daal maa fi nekk maa mun man maa su ma jëkkër mu maa toppatoo te toppatoo bi du foofu ah. toppatoo bi yéen yéen a war a def toppatoo bi ah. jekkat so guinni 800 dogal 800 nga delloo ko bu dess nga ne ko léegi téelci ci li li doyna waye yéen lépp ngeen a def ba pare du ngeen da ngay continuer ci départ bu ci si génnewaale sen susu yi na tay loolu mbéy mi def loolu. yow ci nga bok loolu mbéy mi def ci def càmm célibataire la di. ma soo nekkee célibataire yaa ngi ci susu yi. sali bët dañuy dem marché <laughs> dëgg lay dem marché suusu yi yëpp day waa génn man dama man léegi dama foogoon ne weeru koor sax duñ toog dépasse mm-hmm. waaye weeru koor sax léegi jigéen ñi dañuy toog dépasse mm-hmm. suusu bi dàkkul suusu bu njëkk weeru koor su jotoon dafaa jee mm-hmm. waaye weeru koor yi sax léegi suuf bi def ci bopp parce que traite ngeen ko def. waaye caa suuf bi daf si am solo nag parce que am na ñoo xamante ne comme weeru koor bi jeexee nii immédiatement taay bii lañ koy start ba balaa déwén weeru koor bi dafay fekk xaalis bu bëri na ñu wàcce ay ak ay trog yi bagage te loolu la ngay dee séddale. yow léegi boo amee si yooyu noonu. sa jëkkër bu la joxee two hundred di si mën a duggee. jigéen boo ko bépp jigéen bu ko def indi nduga bi ci kër gi di bàyyi sa xel. Mm. moom rek la jëkkëram am moom dong la jëkkëram am ci kër ju am ñaari jabar ñetti jabar jabaram yi du kenn du ci indi susub saaku maalo wala susub bidon diwlin wala susub carton ginaar wala susub sardine doo ko gis dañu wax ne su ko defee ñàkk fayda suma ma wujj yi ñoo koy dundee ak seeni seeni njaboot rawatina rawatina jigéen bi nga xamante naa ah, maagut fa doom wala benn doom laa danaa loolu ñàkk fayda la man juróoguma fi dara ñu ko def yëpp koo gis mu def ko demal nga yow ñoo ko gis ñu def ko demal nga seet ben ben jikar la ah. ben ñom seen jikar ñom rek la xam ñu dem indi suuf bi indi saako maalo bi dem di leen bëss dañ ko bay dé seen doomi yi ñoo koy lekk. Ah. waaye di ko rawel tam guddi lañ ko duggal ci bi néeg. wa wa wa dé am na ñam na bëcëk lañ koy def pour woné góor gi ñu man maang fi tay man a ñu di rañu mbàkk. am na ñam xam bëcëk lañ ko def islam na ko wala islam na ko ko. déedéet am nga ligéen su fekkee ne dang ko def jox ci góor gi ciiram su ngeen ko sédélé ba pare bay ko ci kër gi nga ñëw nga yaay da kër sangam damal kër diw euh, so fa démé bagage ya nga fa man man lañ ko jox nga ko jël ko indi waye dédé da nga jël sa taxi ñëw indi ta né li suma su fan yooyu yëpp maalo bi lu ñoo lekk da nga puuga réew sax mhm. woné né maalo bi yow ya ko fi indi mhm. jimbo bi ya ko fi indi danga nga ya nga su ngeen démé tok ci seen mooy tam da ngeen dé am bu moy mhm. seen waxa waxtané kay wa ren mo li am mom indil naa ko ba ma ko indilee diw hee su ma jëkkaar kontaan na nangam ak nangam loolu ngeen si soxla woon am ngeen ko mooy góoru benn jabar rek toog. macha allah bari na dafa mel ni da nga xam li jigéen ñi day dundee sax. Ah, man ma ah, am naa jabar <laughs> man moo tax yooyu su ko dee dama ko bugguma dama yóbbul yóbbul ko sa yaay kon naa ñaari fan laa ko lekk mu ma xoolee bul suma gédd nit ki dajale xaalisam ab at ba at bu dajale indi delloo ko man dama man su ko indi man bañ naa ko suma jabar sax yooyu du si dee dugga ah. su ko defee dama naan ko yóbbu ko xam nga lu tax uh-huh. man dama na xarit deret damaa lekk ñaari yoon mu bugg maa woon ne fii ma ma ma maa ko indi dugg na fi génn fi fekk yow affaire du coalition ndaw su ma dépasse da doon sàcc la doon wàññi di ba yow indi na ko bu maa woon ne man suma maalo bi maa ko moom diwlin bi maa moom man damaa tàngoor ma ne ko jëlal yow yóbbu a a gedd dafa gaaw a gedd. loolu loolu nga jigéen. Mm-hmm. jigéen yi dañ dee gaaw a gis luñ moom. Mm-hmm. gis nga jigéen sax suy liggéey salari di mm-hmm. feew. day gaaw a yëg boppam day gaaw a yëg boppam gaaw a ne maay def lii maay man moo tax man yooyu suma jabar suy liggéey nii dama koy jëkkaay sa jimbo sa bugguma sa jimbo bugguma ko. <laughs> su ma waaw soo dama ko ma ko soo soo ne soo ci defee sa jimbo danga koy wax bu fa def sa bàyyil man suma jimbo bi ak suma kaani ak na yi nga jënd defal ma sar rukku suul xam nga rukku suul <laughs> rukku suul bi nga xam ne ñàkkatan bi nga xam ne kii kese la nu tudd ah ah netatu. <laughs> ak diwtiir ak diwtiir ak yow su la nee saa nga fa jëndee diwtiir def ci jaba jàmbur. yooyu li <laughs> ko doon ngan ngan ne ko nga ma am man mu ma gën a ya nga defal ma yàppa sax taxaw naan ma kilo yàpp ya bi maa ko jënd nanga man na waaw man man noonu laa mel man moo tax man su jabar sa laalaate su fee ne ma ne ko ma ne mm-hmm. soo xamee ne daal danga soo fee jëndee jimmoo danga danga koy wax mm-hmm. wala nga munu munu ko mm-hmm. defal ma rukku suul ma du yàgg ba ma jamono biir dina rukku suul <laughs> ay da naan ci am rukku nga lekk déedéet <laughs> kon lu man man noonu laa dee mm-hmm. bépp jigéen boo xam ne nii ami mm-hmm. am nga ci sutura mm-hmm. muy sa ñàq te ngay sëy def ko ci palaas woo sa jëkkër mu dem jëli ah, beneen bi mooy bépp jigéen buy sëy soo waree defaral sa jëkkër bul seet say wujju barkeb sëy ci foofu la nekk ci muñ la nekk kon bépp jigéen bu gën a muñ ci sëy barkeb sëy bi moo koy yóbbu uh-huh. parce que saa yoo ñëwee si sa sëy rek uh-huh. li nga njëkkaa gis mooy cofeelu sa jëkkër ci yow uh-huh. su la ko wonulee mu ngi ci su la ko wonee mu ngi ci bépp jigéen bi nga xam ne ni muñal nga sa jëkkër nangul nga sa jëkkër wallahi azim barkeb sëy danga koy am yow jigéen bi doo faatu mukk te doo kontaan mhm. waaye say njaboot foog ñu am teraanga àdduna mhm. te alaaxira danga ko fa fekk mhm. waaye muñuloo lu nekk palam palam pilim palam jàppal bàyyi lu nekk puugaréew lu nekk kii coono rek ba pare say njaboot danga leen a indi danga leen a teg ci yoon bi nga xamante ni dafa dafay doy waar te loolu yàlla ñu ci yàlla musal waaye daal muñ daal mooy lépp ci wàllu si Euh, fu mu nekk nii nag xam naa ne dañoo jéem a rapport tuuti balaa time bi du ñëw parce que time bi julli romb na euh, léegi lu ma buggoon a laaj mooy kilifa yi nga xamante ne ñoom maanaam nelaw rek muy seen liggéey wala wóor rek mooy seen liggéey yow pour nga dem jàkka ja sax problème la nelaw da ngay nelaw ba fajar sa jabar sax mooy am pour eera ne la ah nijaay time julli jot na bu dee googu gu ñàkk kersa la nag mun naa la ma ne tëjee feer ma lamp ba kanam wala këccal ma ci kanam yow ya lan nga am pour wax góor boobu noonu parce que amna na yo xamanteni sen jabar ñoo leen gëna am diiné dé waaw lolu am xam nga góor man nga am man nga man man nga man dépasse. té mhm. amulo diiné waaw mhm. man nga man dépasse way amulo diiné moy iman nekku ci yow. Mhm. man nga ñaka am dépasse iman nekk ci yow. waaye dama di wax nag ne góor guy rek ne yacc ñaaral jigen bi mo la waaw jigen ji mo la amé waaye bépp góor boo xamante ne ni dangay joxe dépasse tëdd bu yàgg doo ko def sa kër. Uh-huh. ak jamono ju métti yi nga xam ne saako maalo mu ngi ci two thousand dalasi. Uh-huh. bidon diwlin two thousand plus. Uh-huh. saako computer thousand plus. saako soble thousand plus. xale yaa ngi taxaw di maasu aadama ak yoon suba teel lañ leen xolli seen boutique. <laughs> di xaar loo leen a jox. maa su ay sa gi moom soo yéexee ñu dóor sa buntu bi daal di ñu ñaam nga foofu kër googu kan moo faa bidanti <laughs> kër googu kër googu moo fa bidanti kenn yu mat sëkk mm-hmm. waaw kii dafa laa su yéexee mu attaqué sa buntu bi kooku nooy def soo amee beneen jigéen beneen ji jabar yi nga xamante ne ni moom saa su ne moom li muy bugg mooy na lépp baax mm-hmm. bu dara set na tooy xet so repéré mu na la ma ne nijaay yow looy tudd ba tey <laughs> ah gone yaa ngi taxaw dila la xaar nangam ak nangam kon danga nga gis ne bépp góor boo ko gisee rek benn la mooy góor gu yaccaaral la jabar ji amee ko yaa ngi dégg waaye nag imaan moom am na am na ñoo xam ne am nañ iman dinañ julli dinañ julli waxtu dinañ jóg waxtu dinañ jëm am na ñoo xam ne nag amuñ ko seen dépasse mat na te seen jabar yi yoruñu leen. Mm-hmm. ñoo yore seen jabar yore seen i njaboot di génnee dépasse wér. Mm-hmm. waaye imaan amuñ. Mm-hmm. mooy ñàkk julli bi daal ñàkk julli bi mënuñ ko. julli nag jaamu yàlla dégg loolu ci yàlla la ne am na ñoo xam ne dañuy bëgg a jaamu yàlla waaye duñ may weeru koor bi am na ñoo xam ne duñu woor. soo waxee ñu ne dañ feebar bu dégg dañ ko mënut. Jamu yalla du ne du caaxaan gis nga kep kuy or ba wéru koor bi jé mm-hmm. yow yalla def la bu mm-hmm. kep kuy julli waxtu juróomi diko matal wallahi yalla def la bu mm-hmm. kep ku ay bopam caaxaan yalla def la bu matal yeb nak man tane léeg nga mbara teg man tane lolou <laughs> mo mënu léegi nga saaraan bu ñu ne waa leen téye leen waa bi amu dara quoi ñu dégg lolou moo tax ñu ne gudd fan am solo uh-huh. soo guddee uh-huh. fan nga am wér loo saaraan saaraan dina am jamono nga del si waat ci yoon bi mm. moo tax yàlla mu ne man dinaa jëkkale dinaa jëkkale jégale bakkaar yi yëpp mm. ba mu des bokkaale mm. kon loo saaraan saaraan te bokkaale wuloo yàlla yàlla man na laa xetali moo tax ñuy ñaan wér-gu-yaram gudd fan ak muj bu rafet mm-hmm. waaye yaccaaral yii nii am na ci góor ñi de mm-hmm. am na góor am na nag góor ñu am na góor ñoo xam ne suñu amee dépasse juróomi fan mën nañ nelaw juróomi fan duñ gën a dégg dépasse juróomi fan juróomi fan la ñuy tëdd duñ génn moo tax léegi nga laaj seen ne xaalis tey seen papa dafa am xaalis mu ngi nelaw parce que ñoom bi ñu amee dépense juróom bare seen xel daal waaw soo loolu moom am na am na yoo xamante ne sax suñu amul dépense fajar xale yi sax duñ leen gis dañuy jël rek dem dem dem dem uti mhm, waaye am na ñoo xam ne noonu lañ mel bari na fi waaye jaamu yàlla bi daal mhm. sometime yàlla yi def ci dee waaw waaye am na góor yoo xamante ne caam mun nañoo nekk si biir koñ bi kilifa yëpp di leen rombat nii ñoom ñu ngi toog ci biir bunti kër gi nii wala ci biir kër gi ñëpp di rombat dem jumaa te moom daal duñ ko xàmmee si jumaa bi wala si jàkka bi. waaw loolu nag na de loolu càggante bu gën a foofu. loolu na de loolu càggante bu mag a ngi. maanaam moom daal su demee si jàkka ba daal takkaafaam. takkaafaam ñu ne xëy na ñu séddale kaay mu ñëw loolu moom am na ci dëkk bi de am na ci ci góor ñi waaye li si gën a li si loolu mooy li gën a bon. ci góor mooy góor gi nga xam ne jëlu responsabilité ci wàllu diine. Uh-huh. jëlu responsabilité am ci wàllu aadaam. Uh-huh. boo ko gisee yërëm ko te nga ñaan yalla yalla delo ci ko parce que goor ñi di dem ci jumaa ji di la baye sa buntu kër do jog do dem ele suñ la tëralee ci kanamu jumaa ji loo ñu wax seede bu ñaaw rek nga loolu mën nañ durafet. a lu ñaaw sax waye nak du rafet du rafet kon ke bu goor gu ne war nga mëna goor di dem si kay bi mhm. war nga mëna fexé man suma sëriñ daf ma doon wax ni su ngeen demee ci dëkk mhm. fexé leen ngeen xam imam fexé leen ngeen xam borom dëkk mhm. fexe leen imaam xàmmee leen pour ëllëg ak sibir kon dafa am solo bépp góor waaye bépp jigéen boo xam ne jullit nga war nga fexe imaam xàmmee la war nga fexe néegu yàlla bi ràññee la moo am solo macha allah kàddu rafet la acaam fu mu nekk nii time bi daf ñu bàyyi ndax xam ngeen ne weeru koor amana nit ñaa ñëpp iya. ngi sol motax dañuy euh jàngale tout rek ci li nga xamantene moy xew ci biir kër gi ñu sédalé iya. eh, ko ak mbokk yi nga xamantene ñoo ñoo seetaan hmm. waye ñu bàyyi la nga taggo bala may tej wa kay su ko rek ana di la gërëm rek ci eh, programme bi nga xamni mom nga eh, ubbi ba nga xamantene ni ku nekk dina xam lan moy nekk ci li ci li nekk ci kër yi kër yi nag dama ko ne wax su ne kër mooy defar mooy moo moo mooy indi njaboot mhm. kër mooy defar dëkk mhm. kër mooy defar tund mhm. kër mooy defar réew président ci kër lay jógee vice président ci kër lay jógee ministre ci kër lay jógee permanent secretary ci kër lay jógee directeur governor chief alkali borom kër ci kër lay jóge kon dafa am solo trop kër yi ñuy am programme kër yi pour kër yi mën a soppi seen doxin parce que ñay def programme kër yi ci kër yi lañ jógee kon ñoom xam nañ feebari kër yi kon ñu ne feebar jox ko docteur bi ko xam ah. mu faj la ah. kon ñun suñ toogee fii tey di wax ci kër yi luñ xam la te lu ñuy dund la te lu ñuy gis la ñaareel bi mooy eh, kër yi fa wujjee yi nekk ah. moo tax bépp programme mu kër fexe la ngeen ay jëm jëli doomi kuy wujjee koo xam ne yaayam dafa dafa dafa dafa fekk ñeneenti ñeneen eh, ñetti ñetti jigéen ñuy ñeneent wala koo xam ne yaayam dafa fekk ci benn jigéen ñuy ñaar wala yaayam dafa fekk ñaari jigéen ñuy ñett gis nga ñooñu ñooñu gën a xam problème mu kër muy si góor ñi muy si jigéen ñi uh-huh. tey eh, aadama eh, tey soo ko fi tegoon nga ne ko loo xam ci wujjee uh-huh. moom am na yu sew yum ci xam uh-huh. parce que wujjee dafa am solo te wujjee mooy tax nit ki gën a xam lan mooy kër te soo xamee kër rek ni kër du doxee pour nga dëkk ci yeneen i tund yi yeneen i yeneen i mbir yi du nekk problème kon ñu ngi laa gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm it ñoom Adama ak ñi fi nekk ñëpp di leen ñaanal yokkute si zahir ak si baat yow tamit yàlla may la jëkkër ju baax a baax bu la mën a uuf si dara jaay yonent jërëjëf te ba bañ a saaraan ma ah soo saaraan ñu ngi nga ana dara te ba bañ a saaraan macha allah kàddu yi na solo ah, Thiam ñu ngi laa jaajëfal yow tamit di la ñaanal gudd fan ak ah, wér yaram mbokk yi di leen wax ne fii la ñuy émalé programme bi tey bi euh, muy li programme li ci kër bi di leen wax ne ngeen kal ñu euh, one Wednesday incha allah beneen épisode ak beneen topic ci li nga xamante ne mooy li ci kër gi ak euh, ànd seeg ki nga xamante ne mooy caam macha allah mu nekk kilifa kër gi moom it yemale ñëpp jël ñëpp de uuf leen def leen comme njabooti boppam macha allah kon yàlla rek koy fay ah, di nuyu ay Aïssatou Cissé once again ah, di ko jaajëf bu baax a baax a baax di nuyu Anta Kumba Thiam ah, bàyyi ma tam suma waajur bu jigéen macha allah moom tamit jigéen ju man góor la maa ngi koy nuyu di ko ñaanal gudd fan ak fekkee di ñaanal suma waa kër yëpp di ñaanal tamit suma maam ju baax jooju nekk ba jaamani di ko ñaanal bu du fan ak wér gu yaram wér ak fekkee moom it ndax mag la macha allah te daf ma buggal boppam nag waaye wujjaam laa duñ dee juboo mm-hmm. ndax dama nangu jëkkëram si loxoom loolu la ma mere. Mm-hmm. yow de saaraas nga <laughs> yow saaraas nga non jëkkëram moo a topp nag. ah jëkkëram a ma a waaw jëkkëram moo ma topp waaye moom moo ma bañ a xajal. kooku boobu <laughs> moo ma bañ a xajal. Ah, waaye maa koy jaajëfal bu baax a baax moom it ah, di leen wax ne nag dañoo ah, tëj programme bi fii rek ba Wednesday incha allah ak beneen épisode di ci kër gi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam di leen wax ne nag macha allah yal nañu yendoo jàmm yal na defal ñu képp nga xamante ne amul lum suturloo tey yal na ko yàlla may lum suturloo balaa jant bee soo incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ba beneen yoon.